bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokki Sihaatul Jismi eh, jotaay bi ñuy jàngale wér gu noongi leen di nuyu di leen siyaara di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Sëriñ Ousmane ci njiitu borom xam-xam di siyaare waa jotaay bi yëpp di siyaare mbokk yi ma fekk ci bunt bi yépp di ñëw ci laaj bi nga xam ne mbokk moomu laaj na ko ci wàllu tamaate ak i njariñam moom tamit bokk na ci nga xam ne jàngale nañ ko fi ay yoon yoon yoon waaye nag jàngale moom ak baamu ñoo ànd ak fàttali ñoo ànd wa zakkir fa inna zikraa tanfa'ul mu'miniin euh, tamaate tamit bokk ci ñam yi nga xam ne dafa am njariñ ndax yu bari ci daje ndax wax nañ ne garab yëpp dafa dugalante ndax meññeet yi dugalante euh, ni nit ñi dugalante waxin yeeg jëfin yeeg euh, comportement yi ak tawat yi ni ñu dugalante yëpp moo tax tamit yi ñu fajoo dugalante ñam yi ñu lekk dugalante ndax wuuteeg tabiyan yi mooy température yi tamate tamit bok ci yi nga xamne lu bari ci li sentu vitamin ci ñam yi amna ci waaw ndax vitamine c vitamine d lu melni vitamine c ak yeneen xet vitamine ci dess yeb wala mboolem hanasiri moy element yi nga xamne ne dafay am ci ñam te nit diko ajo moy muy dundal yaramu nit lu melni potassium waye lu melni euh calcium ak yeneen ak yeneen yu bari na ci biir euh te itam tamate dafa néew sadiyom ndax potassium bu bari bi ci nekk te sodium baax na ci yaram waaye bu ëppee baaxul ndax su ëppee bokk na ci yi nga xam ne euh, bu ëppee ci yaram rek nit ki mën naa amee tension mën na loolu tax tension yéeg te potassium bu bari bi mu am tax na ba te potassium dafa am tashiratu nafsuhu boo xam ne euh, bu ko nit ki jëfandikoo da koy dimbali ci sadiid yi day yaatu sadiid yi day ubbeeku deret yi mën a circuler normal loolu feeg mi nga am ñaare ah, dana néew nit ki di amee tamaate euh, bokk ci tamit ci ñam yi ñu jëfandikoo mu yàgg lool mooy tamaate bi ñu xam rek bu tuddee tamaate njàmb te ñu ko xam ci marché bi waaw donte am na yeneen yu génn yu bees ak yu mujj yu xam ne waaye daal tamaate bi ñu baaxoo xam boobu moom baax na lool ndax bokk na ci ay njariñam bu ko nit ki jëfandikoo nii waane mu am cancer waaw nii mu am cancer ndax lu bare vitamine C la. ak yeneen yu bari yoo xam ne dafay aar yaram wi dox diggante yaram wi ak xeeti lor yi nga xam ne ñooy ñooy ñoo koy dugg ndax yaram am na ci yoo xam bu ci manqué tawat da koy da koy yomb am ci yoo ne bu amee ci yaram wi yaram wi day dëgër ba ferñeenti deret ji wala yàpp ndox mi day aar day aar am ay kii yu bari yu ne yoo xam day aar su tawat si du gaaw a dugg su manqué tawat da koy yomb yooyu nag tamaat dafa bokk ci yi koy def ci nit waaw ay gardien bu noonu laa ko mën a tuddee waaw bu nit na ko tamaate yaram day am ay garde corps yoo xam ne ñooy garde benn tawat du mën a dugg na tawat yooyu nga xam ne ñooy waral cancer ak yoo aju ci yooyu euh, jàngat yi ñu ci gis yëpp tamit nga xam ne dafa ne ko ci ay barab yu taqalikoo ci euh, ci ay docteur wala ci àdduna bi fu bari ñëpp d'accord nañ ci ne ñaareel euh, nit ki buy jëf na ko tamaate loolu mën na koo musal ci canceru prostate parce que xeeti jafe-jafe tuur ndox yépp euh, bu yàggee ci nit muus gi nga xam ne mooy mooy euh, tuur ndox mi muy euh, gaanuwaay mi mën na dem ba am góom ndax cancer ci der wala ci yu mel mooy fu dagg rek am góom rek ci gàttal la ñu tudde cancer bokk na ak canceru deret mais canceru der wala canceru cër bu amee mooy cër bi dafay am góom wala moom dagg-dagg boo xam ne mën na indi jafe mel ni tamaate yàlla day dox digganteem ak loolee ndax yu bari yim am lu mel ne bêta carotène yi mm, ñi nga xam dafa ne ci tamaate euh, dafay te euh, élément boobu dafa baax lool dafa bokk ci garde corps yi nga xam ne garde barab yooyu ba nga xam ne euh, xeeti góom yooyu wala xeeti gaañu gaañu yooyu dafay am ak canceru colon mooy buutitu colon boobu tamit bari na ay xeeti sabat yu koy daal waaye su yàggee mën a dem ba am góom ba amee góom nag moo ñuy tuddee sarataanu colon euh, maanaam cancer de colon dañuy dee sarataan euh, loolu nag euh, tawat su yàgg mën na koo waral ndax bu dee gisu amee ay jafe-jafe te nit ki fajuwut mën a dem ba ay góom wala mu am ay dagg-dagg yooyu itam bu fekkee nit ki yaa ngi jëfandikoo tamaate dana ko aar ci loolu moo tax ñaari cancer yi canceru mm, prostate ak canceru colon su ñu koy jëfandikoo tamaate yàlla mën na ko cee musal waaw niwaana mu am ko bokk na ci jëfandikoo tamaate day dox diggante nit ki ak tension surtout ñi nga xam ne seen tension dafay yéeg ndax sodium boobu moo waxoon li muy am am solo su baree ci yaram loolu mën na waral deret di di tëj mu gaaw gaawaay boo xam ne mën na ko indi liigu tension léegi nag comme tamaate sodium bi bariwut te tension te potassium dafa bari potassium boobu mooy dox diggante ak loolu moo tax ñu ne bu ko nit ki jëfandikoo moom tamaate sadi day ubbiku day yaatu lool ba deret ji di mën a circuler ko waxoon sànq ci gannaaw moo tax sax ci euh, gëstu yi ci docteur yi def ak borom xam-xam yi awlal alam mm, euh, gis nañu ne ñi koy jëfandikoo ci ay nit biñ ko tàmbalee jëfandikoo faatu gi dafa wàññiku ci ñi nga xam ne noonu faatu te faatu la ko sabab mu jógee ci saaru cancer yooyu mooy canceru colon wala canceru euh, kii yu mel noonu wala faatu ko xam dafay jógee ci saaru tension yooyu yëpp gis nañ ne wàññiku na te boo jër wàññiku na. Mm, vingt pour cent kon nag loolu am solo la euh, bokk na ci jëfandikoo tension dafay wàcc suukar si nga xam ne mooy nekk ci deret ji waaw ah, dafay dafay surtout ñi nga xam ne ñoo amee jabet bu ñuy jëfandikoo lu mel ni tamaate di ko boole ci li ñuy añee wala li ñuy ndékkee wala li ñuy reere wala sax ñu ci defar lu mel ni ab si donte benn kaas la bu fees saa boo xëyee rek nga jël ko ci loolu mën a dox sa diggante mën na wàcc suukar si newoon ci deret ji mën a dem ba nit ki bu amee sax te di ko jëfandikoo yàlla dana ko jëmbale ci Euh, yu bare ba ko ko wanteel te itam dana ko musal ci euh, cancer yooyu mu tudd muy colon wala lu mel ni canceru euh, prostate ndax su ndax rawatina nag ñi nga xam ne ñoo amee lu mel ni jabet ñoom moom baax na ci loolu ñoom parce que dafay dimbali cër boobu di liggéey nga xam ne mooy pancréas bi nga xam ne bu ségee mooy indi problème mu jabet da ko ci dimbali bu baax ci mu mën a def liggéeyam bokk na ca bu ko nit ki jëfandikoo tamit moom tamaate bi saklin yow mi maanaam chaque jour mu koy boole ci li muy dunde néewaane mu jànkuwanteeg seere te bu nit ki seere woon di ko jëfandikoo mën a dem ba seereem boobu deñ ah, kon lu ci baax la bokk na ci li leeral bët ak tamit garde bët ba yu bari du koy dal seeru saaru katra yi dal nit ñeeg wala picc yi ci bët yeeg wala picc yi bët yi am lu ñuul wala ay tupu tupu wala yoy yeb bu tamate koy jëfandikoo te diko organiser yalla mën musal yu bare bari na bokk na ci lool ci bax ci walu di ko ak muy dox ni wala dox bokk na ci njariñul tamaate jigeen ñi tollu digeen ñukoy koy jëfandikoo tamit dana dimbali ba loolu ñu ëmb seen biir yi muy liir yooyu duñu am benn jafe-jafe mën nañoo judd te judd bi du am benn problème mën nañoo judd te duñu indaale benn gàkk-gàkk waaw ndax léeg si nit juddu andaale ay jafe-jafe wàllu bët wala ci wàllu tànk wala ci wàllu loxo lay mel noonu ndax doomu moom mën na judduwaale xeetu làgge bàyyi ma rek mooy loo xam ne buy judd day mat sëkk lu ca manqué nit ñaa ko ca waaye bu dee doomu mën na judduwaale ay ayib yu bëree bëri léegi nag jigéen gi ba tolloo jigéen di jëfandikoo tamaate ci te organiser ko loolu yàlla mën na ko ci ba doom ji buy juddu day am mbooleem yu war a ne ci moom yëpp maanaam day mucc ci day ayib waaw néewaa mu juddu am ayib yu ko dal ñuy seetee par rapport jigéen ñi jëfandikoo tamaate ci buñ tolloo ci ay diggante ci ëmb ak jigéen ñu ko dul jëfandikoo gis jigéen joo xam ne day jëfandikoo tamaate am doom doom ji am ayib déedéet waaw ndax tamaate dafa bokk ci yi garde yaram yi defar yaram yu bare bare ndax vitamine yooyu ci nekk ak élément yooyu yu am solo yooyu bokk na ci jëfandikoo tamaate ñi nga xam ne seen wee day day day dagg day damm wala ñi nga xam seen karaw day day xosu wala muy ruus di wadd wala yooyu ci aju yooyu yëpp bu ñu jëfandikoo tamaate yàlla mën na leen caa dimbali ba jafe-jafe yu ñu jànkuwanteel mu dañ wala ñoo xam sax seen deru yaram dafa ñaaw wala moom ay tupp-tupp wala ay gàkk wala ay heure wala yu mel noonu suñuy jëfandikoo tamaate man na am suñu borom musal leen ci loolu bu fekkee koo xam ne nag eh, deram dafa ñaaw dafa am ay heure tamaate boobu bu ko ciy diw loolu de mën naa dem ba rafetal der boobu mën na koo dindi waaw bu ko xam karawam na koy jëfandikoo rek saa wala boog mu koy bolé ci limi jëfëndiko ci suba ngol ca ñu nga reer waaye ci walu wéru xol dama da bok na ci bu ko nit ki jëfandikoo xol bi mëna bañ am sik manam jaf jafe yi xol li jànkuwanteel yëpp mën naa dañ ndax dara ji dana set te dara ji li ci war na ci ay élément dana ci nekk ci ay xeetu vitamine yoy yépp set yi dana ubbi ko dara ji dama ko ñëw te lool bu xasse am rek xol bi day daal di fiix waaw yépp day daal di fiix ndax dafa am potassium te potassium bi dafa bari te potassium dafa baax lool ci xel yooyu ñu tudd yëpp kon lu baax a baax la ci ñu di ko jëfandikoo wala ñi nga xam ne dañuy am faral di am crise dañuy am si benn kaas saa bu xëyee rek ci tamaate naan ci suba gi noonu mën nañoo bañ am seen crise boobu mën a saafaru bu dee koo xam ne amoon crise euh, mën naa bañ kiris crise bu dee koo xam ne amoon crise di ko jëfandikoo crise boobu dana saafaru waaw ni waa daal nit ki ñakam am crise cardiaque di jëfëndiko tamate ba nak am ko ko mom déedéet waaw euh ak yeneen yu bare bare yo xamne euh, tamate da koy da koy da koy def waaw da koy def wala ñi nga xamne ñam problème mu bo yuur ñoy ñepp tamit bu fekke ñi jëfëndiko tamate yalla man lañ ci leen cee musal nakoon tamit day wacce cholesterol ñi nga xamne ñoo seen yalla dafa bare garis nañ koy jëfëndiko chaque jour waaw tay dem mu bañu ëpp ndax tamate bok ci dafa baax ndax cholesterol ñaar la cholesterol aljayid cholestérol assayi cholestérol aljayid mooy cholestérol bi ñu tuddee HDL mooy cholestérol bu normal bi nga xam ne diw gi xam dafa normal ndax res yi mooy togg kares gi eh, téeméer boo jël quatre pour cent yi daanaka eh, waaye su nag du baax la ëpp nag moom lañu tuddee cholestérol assayi mooy LDL boobu moom baaxut waaw te tamaate dafay yéegal bee bu baax bi aljayid bi di wàccee bu bon bi mooy muy yi kon tamaate lu baax la ci ay xeeti yooyu noonu ak yeneen ak yeneen yu bari sax ci yu muy jariñ ci ci nit ku nit ki jëfandikoo yàlla mën na ko ci defal tawfiix maanaam daal lu baax la lool baaxaay gi daanaka boo koy lim xaw ma fee mën a fanaan moom daal liñ ciy bañ mooy di ko jëfandikoo lu ëpp lu ëpp moom baaxul lu ëpp moom baaxul waaw lu yam daal soo xëyee daal donte benn kaas nga ci maanaam nga am ci benn kaas bu fekkee amoo ci ab kaas te am ci doom yi sax doom yooyu noonu soo xëyee boo ci amee trois doom doy na sëkk waaw bu dee doom yu mag yi nag laa wax wala boog nga boole ko ci li ñuy dundee Ah, ndax lu bari ay xeeti élément yoo xam ne yaram da koy soxla ay xeeti vitamine surtout ndox te yaram moom bu ndox mi doyee rek euh, niwaana mu jàmbat dara euh, wala calcium bi doy wala mel ni potassium bi wala phosphore bi wala vitamine c wala vitamine a yooyu yépp tamaate am na ko te yooyu baax na ci yaram lool ndax bu ñu seetee ci wàllu ndox tamaate am na ci ndox lu toll ci 178,14 grammes ci ndox moom la am protéinat yi 1,58 gramme bu dee calcium 18 bu dee potassium 425 milligrammes bu dee phosphore 43 milligrammes vitamine C 24,7 milligrammes vitamine A noonu kon baaxaay gi moom euh, macha allah moom daal loolu lañ ci mën a tënk ci gàttal xam naa bu sëñ Ousmane ñëwee dana ko gën a yaatal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. assalamu warahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh wa dafa bok ci yima fatte won ci waxu ci walu tamati ci walu cancer yoy nga xamne da koy fajj moy canceru xeter bo tamit ku ko tamati yalla mëna ko ci musal ak canceru xeter euh comme canceru colon yek canceru prostate nak na tamit canceru xeter yoy tamit kasalik lu ci bax la bu ko niki jëfniko yalla sunu borom mëna ko ci musal ndax bax na ci lool dal xéti cancer yoy mom di jëfniko tamati daa tax nit ki du ko am ki ko am tamit su koy jëfandikoo eh, muskile ba ca nekk mooy problème yi ca nekk yàlla mën na ko ca musal tey itam man naa dem ba saafaraw kon eh, tamaate moom baaxaay gi eh, macha allah lu bari ay xeeti njariñ la hmm, ak yu bari yu muy défense ak di ko fajal nit ki dafa bari lool même ba ci ñi nga xam ne dañuy teel a màgget même gis nga màgget nii doon ko dem màgget wala nga jékki-jékki màggat te say at àggu fa bu nit kiy jëfandikoo tamaate loolu mën na ko ndax dafay sàmm der bi dafay sàmm cër sàmm yu bëree bëri kon euh, teel a màggat tamit bokk na yi nga xam ne tamaate da koy euh, saafara wala lu mel ni teel a euh, bajaaw yooyu yëpp ay coono mën na ko waral yaram yu manqué ay ay vitamines na ko waral moo tax jëfandikoo loolu lépp yàlla mën na ko cee dimbali. ba tey tamit même jigéen ñi nga xam ne saa bu ñu tolloo fenn mu yàqu waaw loolu tamit bu nit kiy jëfandikoo tamaate. yalla man nako ci cee musal surtout ñoño waaw ñi nga xam sa buñ ëmbee rek ba am rek mu yàqu mu avarté ah lool lepp bu ne ki jëfandikoo tamaté yalla man nako ci musal waaye lu yam ndax lu dig doomu wala ñi nga xam seen yaxi yi day toqi toqi waaw day yëngu lu baree bari fi ñu jëfandikoo tamaté si bobu sa bo xi am ci ab kaas bam fess rek yalla na na musal ci mbooleem xéti yax yoy di yëngu surtout nag wóom yeeg ñi xam yim problème jamm problème woom problème dajor problème mu teussan problème mbag problème mu cioncio tik yara yoy yeb ndax yax bu fekke dafa mag bu upp fim nekkon te mag gogu manki calcium dana koy waral wala euh, potassium dana koy warale Yah gi mag nu murta magge wala mu nu mur wala mu genn fim nekkon wala sax ndox yi wara ne fofu muy liquide bobu di toyel fofu muy noy niki mana def te du ko yek lol tamit bu jexé loolu tey manque éléments yi da koy waral su jeexee mooy waral loolu te bu nit ki ko tamaate loolu fu war a nekk ci xeet yooyu mi calcium phosphore vitamine K ak yu mel noonu foofu day da koy daal am ak yeneen kon euh, te yi nga xam ne nit bu ko fekkee biir baa koy am yaa ngi koy am du tax day tax du seere dañuy wax ne 7 pour cent yëpp am na ci tamaate moo tax mu baax lool ci yu mel noonu tamit euh, boo muy day reesal aw ñam waaw day aw ñam. te day jàppandal buti di ñu def seen liggéey ba lu ñëw rek mën a jaar fa mu war a jaar kon loolu tamit lu baax la euh, moom daal lu baree bare ay xeeti njëriñ la yoo xam ne ba ci ñaamee feebaru kila lu ci baax la lool buñ ko jëfandikoo lu yam dana xeer yooyu te dana koy raxas tamit wala ñi nga xam ne seen yaram dafa yam romantisme loolu ñi nga xam ne fu ñu toll ñu ngi koy jàmbat mbagg yu metteeg conco yu metteeg wala xeet yooyu buñ ko jëfandikoo tamit loolu yàlla mën nañ ci musal moom daal ak yeneen yu baree bare yoo xam ne xañ na bu suñu Usmaan ñëwee dana ko yeggale gën ko jottali incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullah